ngeen lekk avance amu seen. waaw mais attends Tapha actuellement nii mbër bu bu bu bu taxawee di ragal benn mbër waxuma sax ama seen mais di ragal benn mbër ci làmba ji mais ñun waa Bawol ñoo koy jël dóor ko ay yat hmm. ah oui am na doole bi am na fit bi am na mën-mën bi hmm. mais lu tax muy ragal kenn mais moo ko ama seen làmba la mën daanaan la kenn weddiwu ko ama seen ñun la après moom yow bëre woo ama seen ama seen bëri nañu man ak moom bëri nañu quarante cinq minutes na maak moom 42 minutes sax la ñu bëri temps bi des ay 3 minutes mu mu mu mujjee daan ma. ama seen daanaana man maa ci xam dara ama seen dama organiser mbapat dégg naa mu koy wax ci tiktok bi mu ne boobu far ba Ngom moo ko indi Farba Ngom moo ko indi mais boobu comme ngoom Ngom siiwut kon xamuñu ko woon maa organiser làmba ñu tegal leen xaalis moo mbay Diouf mu daan mbay Diouf mboot mu rëy ama seetaan naa ko mbapat ba tey ndaanaana man maa ko xam dafa mën bëre mbër yi daq bëre ci làmba ci la bokk mais bu tafaatin àggati di ko ragal mais tafaatin ñun dañu koy dóor ay yat ah oui. billaay wallaay. Samba Xoyam doomu bi jë doomu bi. yaa kaamil mbër kaamil la ngi noonu. barke Mouhamed te dama ko nangul. mën bés. fonk bés respecté bés. xam nañ ko bu baax. la daan nga fayu. loolu noonu la déggoo lu ma la wax xanaa. est-ce que temps bi xaar nañu ñu ne ko Eumeu Sène mais temps xaar nañu féete ba kii. te la de Guiers mais mais mais mais tey la Boy Niang bi mu daanee Balla Gaye nii mais ku ko waxoon yàgg Tapha Tine du ko nangu. waaw <laughs> ma ngi noonu mais nag diggante bi nag combat yi jaar yàgg na diggante euh, Lac de ak euh, Tapha Tine. merci beaucoup li kalaaf la suma su ma juumalee 2006 la woon. li fi li fi jaar yàgg na. mais sa waay hmm. ñun état bi couronne bi lañu teg suñu bët. <laughs> kon daal Lac de Guiers na xaar. am te couronne bi ñu teg suñu bët. dafa am foo xam ne dafa yéex am foo xam ne dafa gaaw voilà ñun fi gaaw lañu ñu xool merci beaucoup léegi soo too bëre woon ak Eumeu Sène nii soo ko daanee mais da ngay xaar boo ña nga Modou Lo rek ku ci lu ci xew après nga jël mais tey nii bëre woon nag Lac de bu daanoon Lac de Guiers ba léegi day taxaw dañ naan ne jël Eumeu Sène mais bu daanee Eumeu Sène bi nii ñaar ñële lay xaar sa laal làmb ji daal toll foo xam ne doo jàpp benn mbër ngeen di bëri di bëriwaat mais mais avant mu avant avant Ama Baldé di taxaw waxoon nañu revanche am mook mook mook mook kii mook Tafa mais Ama jëlu ko Ama dafa dem jëli ji Modou Lo comprendre nga waaw boobu mooy roi des arènes mais Modou lu roi roi des arènes bi nag ñun tamit moom la ñu bëgg actuellement nii waaw moom la ñu bëgg a jël te ñaanal maa ngi ñaan ñëpp ñu ñaanal ñu jël ko parce que am nañu am nañu fulla bi am na ñu fayda bi am nañu bëre bi am nañu fit bi am nañu xam-xam bi aussi ñu ñaan yàlla rek yàlla dooleel ñu kattaleel ñu bu ñu jël ko. am na solo moom la ñëpp soxla mooy titre roi des arènes képp kuy tax ngemb rek te nga nekk ci làmb moom nga bëgg a jël kon nag euh, Tapha ak ay mbokkam. loolu la ñuy rêvé ci li nga xam te ni mooy ci làmb ji fi ma koy jeexeele nag mooy euh, combat bi ñuy wax mooy combat du diggante Reug ak Sa Thiès donay Papa Kane ak donay Double Less bu neex combat bu doy mais mais mais ñoom ñaari mbër yi kenn ku nekk da nga am foor ci làmba jooju noonu Reug Reug am na foor bu baax ci làmba jooju law Reug Reug gis nañ ne dafa bëree ba yaramam man li bëree parce que dafa bëri mboppat lu bare bare bare bare ngëm-ngëm boobu lay demee ba mbër bu mu amat combat dala naan maa la man ngëm-ngëm boobu lay demee Sa Thiès fort bi mu am ci làmba ji mooy warul nangu benn yoon ci biir làmba ji waa ji téye ngëmam Sa Thiès téye ngeen yoon rëg-rëg téye ngeen tax loolu. li tax loolu mooy rëg-rëg dafa bokk ak màggam bëre. Sa ah, Thiès dafa bokk Sa dafa bokk ak màgg yi ni ñuy bëree ñoom dañuy jàpp sa ngem fàqat la jéem la déséquilibré wër la ndombo def ay jargandalu yooyu lay def mais boo bàyyee ñu téye sa ngem doo bëre mbëru bërëkat saay bu bàyyee ñu téye ngemam du bëre looloo dal loolu moo dal Boy Niang mbëru bërëkat la dafa bëgg di bëre te du ñu téye ngembam xam nga xam-xamul làmb loo ci am rek ci nit nga ko jëlee man sama combat ak njaga Diop Père Mbaye Gueye dafa jàng Ndiaga jóob bi may préparé làmb ji mu ne ma làmb ji def ay vingt cinq jours mu ne ma maa ngi chaque jour maa ngi entraînement maa ngi lay xool mais bëgguma benn yoon ci biir fii ngay préparé làmb ji contact yi ngay def nii nit téye sa ngem bàyyi ci xel liggéey ci loolu liggéey ci loolu boo xoolee sama combat Ndiaga Diop man maa jàpp moom jàppul comprendre nga parce que père xam na ne man mbëru bërëkkat laa te buñ la téyee doo def li nga bëgg def merci beaucoup rëg-rëg forum mooy mu jàpp la su la jàppee ak noo mënt toll mun na la daan gis nañu Gris 2 macha allah ni mu toll Elton ni mu toll donc Sa Thiès war na bëre te te te laaw yooyu muy def tamit mu invité ko Sa Thiès dóor xeexu mbet boobu na ko invité jéem a bëre teg ko ci yoon bëre ko waa ji euh, la kee tamit rëg-rëg tamit moom nga jàpp mu jàpp moom bañu ko bi mu yëkkati giri boor giri deux giri dafa jàpp mu jàpp bi mu yëkkati kee dafa jàpp mu jàpp moom daanaka nga jàpp nga bañ jàpp la yemale dafay bëre mais kay avantage bi mu am bu ko bu mu nangu waaji mu jàpp bu mu nangu waaji mu jàpp lamba joo xam ne lamba ju doy waar ku ci juum rek sa morom mën na la daan waaw mais bu ñu si daanee tamit seen face faas yi euh, kii di rëg-rëg dafa jàpp ni dafa ëpp doole Sa Thiès boo xoolee euh, ci état de physique yi nga xam tamit am nañ ko ñoom ñaar ak rëg-rëg ni muy communiqué dafa mel na que moom moo ëpp Sa Thiès lépp ci làmb xam nga da ci bàyyiwul xel mais léegi wax naa la ko dafa bëri mbapat lu bare dafa bëri mbapat ba yaram bi màndi mbëre bokkul ak mbër bi nga xamante ne daanaka ci combat ba combat lay ñëw contact wala kii mais koo xam ne bu làmb ji bu amee combat mi ngi contact bu amul combat mi ngi dugg ci àll bi di contact du bëre alors dem ba bëreetul defatul loolu mais à chaque fois mu ngi dem gis nañu muy dem extérieur di bëre ay MMA donc kooku toujours mu ngi compétir mën-mën boobu ak doole boobu ak euh, compétir bi mu am moo ko poussé ba nga xam ne yaakaar na ne ku taxaw kanamam moo la man gis naa ko seen jàkkaarloo mu ne ko yow ñu bëri dix combat ma daan la dix combat ngëm-ngëm la te loolu mu gëm noonu loolu lay indi à chaque fois ci làmb loolu lay indi man duma wax ne moo ëpp doole du ma wax ne moo gën a entraîné waaye moo ëpp compétition loolu moom dama koy nangul gis nañ si gis naa seen i forme ñoom ñaar yëpp euh, rëg-rëg moo gën a dagg moo gën a dagg saa kees mais am na ñoo xam ne du ñu dag noonu mais dañuy am doole te Sa Thiès xale la bu ndaw Sa Thiès ku ne xam na ne xale la parfois man li ma koy kii rek mooy ci ay bëreem malgré mi ngi def ay erreur mais mi ngi si bëre di daan parce que nag bëre ñaar la da ngay jekku wala ñu jekku la buñ la jekkoon nag tamit gars yi bu ñu ko jàpp ne erreur la sant pour cent parce que dañ lay jàngal bu ñu la defee nii nii ngay def pour génn ci bu ñu la àggee fii nii ngay def pour génn ci mais waroo di bëre waroo di jàng rek boo andi nii nga war a def waa ji boo àggee ni nga koy def mais dañ lay ak fen fi buñ la àggee fen fi da nga war a laqati nooy def ba génn ci. mais moom bu ñu xoolee ay combat mi yu bëri day def erreur ba daan wala mu def erreur ba daanu. waaw man moom mooy li ma lay expliquer nii. du du gars yi bu ñu ko jàppee erreur. xam nga tey dañ la naan bu la waa ji dóor da nga koy ni nga koy paaree ah mhm. bu la waa ji dóor ni nga koy paaree mais c'est la même chose. bu la waa ji fexee ba jàpp sa tànk ni ngay def pour génn ci mais Sa Thiès ñëwul ñëw taxaw rek bàyyi ñu koy war ndombo comme comme ni ko Sarr ko defoon ci dañoo bëree ba ak foofu waa ji ak ko fa ki ngay bëree tamit li ngay jéem lay jéem dafa jéem fexe ba wër ko ndombo booy bi xool nu muy def ba laqar ci ba génn ci gis nañu fi roog mbalax euh, magu baa booy bi wër ko ndombo mu def ko prise mais yooyu dafa am loolu dafay am ci làmb dafay am ci lamb c'est c'est nag bañ ko maye moom moo gën. mais nag rek di ndaanaan di technicien di tacticien ndax bu ko saa kees maye loolu. non diggalu ko benn yoon mu may ko ko mbër. exemple bi ma lay jox rek su ma yoroon di ut si la di bëgg la jam mbër di nga ànd ak tiit moo xam ne ak conscience boo xam ne pour ma jam la ko du yomb ah. mais soo ma ko mayee ma jàmm ko as hmm. ce xam su ma soo ma ko yombalee ma jàmm ko mais su ma nee bëreet aussi la di nga fexe noo koy moytoo ba du la dal mm-hmm. donc kon bañ ko mayee moom moo gën man de Sa Thiès li ma gis mu bëri ay kombaam yoo xam ne añu àgg ko fenn fi bëgguma benn yoon rëg-rëg ak ko àgg ko foofu uh-huh. mën na ko fa àggee nag mu génn fa mais bu ko mënee moytu moom moo gën. bu dàq bëri ñoom voilà ku dàq bëre xam nga seeni façon bëre bokkul dafa am différence Sa Thiès bërëm dafa am spectacle gis nañu ay kombaam yu bari mu jar gandalu def ki moo ko nees mais kee bërëm da koy assurer day japp ba mu deuguer monter le prix daan la motax tax seen bëre yi xawul bok quoi c'est parce que na dal rëg-rëg mo gëna assurer beure euh buñu ñu ngem ku nekk japp sa ngem la morom kan moy avantage. wa moy kon lima la wax léegi man Sa Thiès comme moom mu jàpp te ñu bañ ko jàpp moom la gën a mën nekk ñu jàpp ko bu mu mayee ñu jàpp ko moom. mën na jeexee ci xeex. ah pourquoi pas mën na jeexee ci xeex bu ñu bàyyiwul ni ñuy xeexee mën na jeexee ci xeex parce que Sa Thiès li muy xeex noonu comme mën na dóor waa ji comme mën na jóg jël ko erreur rëg-rëg nag gis nañ dañuy day dóor gauche droite waaye moom itam des fois day dóor gauche bi dóor day dóor droite bi dóor gauche bi xaw fa tëdd tuuti quoi. waaw xaw fa tëdd tuuti quoi day day xaw a diib voilà mu ngi noonu loolu tamit moom war na ko invité quoi. combat bi la moo ko jeexal expérience mentale doole mystique wala lan. ki gën a posé. dal combat la boo xam ne amul surux surux amut yooyu noonu da nga koy teg ci xel teg ko ci tactique ak tic-tac combat bi loolu la laaj mais parax parax parax ku ko ci def rek jël combat bi yenn ko. mën nga am surprise bu rëy. lamb ji mën na gaaw. waaw mën na gaaw kay non te sax daf dafa war a gaaw te man dama jàpp ne day gaaw. ah mais gars bëgg combat bi neex gars yi jargandalu dam dikki dikkaat. ñoom ñaar ni ñuy bëree la. Sa Thiès du daw. seen combat mënut a yàgg mënut a seen Thiès du daw Reug Reug du daw. Uh-huh. <laughs> ñoom seeni combat boo ko xoolee saa yi bu arbitre soufflé ku ne da ngay uti loo am. doo xaaroo benn mbër. Sa Thiès ku ne gis na ne bu arbitre soufflé mi ngi sa kaw. rëg-rëg tamit bu arbitre soufflé dina taxaw léewaato mais doo ko dàq mu buusal la benn mètre donc kon combat war na mën a gaaw. rëg-rëg loo ci Sa waaw mooy li ma la wax rek bu waa ji jàppee te jàpput de a ah, moom it mën na am lu ko metti quoi waaw mën na ko am lu ko metti. Sa lu mu war a moytu ci rëg-rëg. Sa lu mu war a moytu ci rëg-rëg bu mun nangu waa ji téye ngembam. na ngembam. ko am li mu bëgg. li mu bëgg moom bu fexee ba jàpp te waa ji jàpput mu bëree comme noonu mu doon bëree comme gis nañu ko mook nees gis nañu ko mook yeneen mbër yooyu noonu bu ko defee ñoom Jordan yooyu bu ko defee mun na am dara quoi mais mais Thier tey tey tey boo doon bëree ak man ni Thier boo ma bàyyi ba ma jàpp nga jàpp Thier pour ma mën naa la daan de mais mais pour ma daan la du yomb du yomb parce que ku jafandu ba téye nga téye mu téye mbër pour nga daanati ko du yomb mën nga ko daan nag mais pour nga daan ko du yomb de. non non. am na solo Zal kon maa ngi bëgg ci yow. waaw maa ngi kontaan ci yow. di di di ñaan la yàlla làmba ji daal yàlla tegal ñu ci loxo ba mu gën a avancé parce que làmba moom ñun dañu ko def ba bàyyi donc tey dañu bëgg mu avancé suñu rakk yi nga xamante ne ak suñu jarbaat yi nga xam ne ni dañu ñenn bàyyi nañu seen liggéey ñenn ñi bëgg nañu ko ñu ngi liggéey waaye ñu ngi koy def dañuy ñaan yàlla ñu am ci li tax ñu dugg ñu am lu paas seen njor waaw di li ma fi ma mujjee rek fi ma jëkk rek lay kiiwaat Sénégal dafa toll foo xam ne extra extra bi nii tension bi yéeg na neer yi tàng na waaye nañu dalal nañu dal parce que tey boo déggee xale yi li leen di dal ñu leen di jàpp di leen yóbbu ci kaso yi di leen kii yooyu noonu damay wax ñaari parti yëpp muy nguur gi muy pouvoir bi muy opposition bi la dal ñu toog ñu waxtaan parce que Sénégal jàmm moo fi xaj Sénégal fii gis nañu fi kilifa diine yi fi tëdd Sénégal fii am ci yeneen réew yi waru fi am rafetul te image yi ñuy wane taay yi nii extérieur muy siiw ci monde bi rafetul ci Sénégal parce que Sénégal kenn xamul ko loolu yàlla mi nga xam ne moom mën nag te mooy borom lépp ah ñu talal loxo ñaan ko rek mu teg ci loxo ba affaire yi set may may nuyu sama coppee Dembale di ñaan yàlla rek sudem bi yàlla dem ba nekk télé ci barke Seydina Mohamed allez am na solo amaat mbégte kontaan bu baax a baax tey ki amoon invité fii ci Kër Massar muy euh, Zallo nekkoon ancien leader nekk ci làmb ji liggéey ci lu am solo di nga combat yi nga xam tamit dem décortiquer ko wax na ko ci li nga xam tam bi ku ci nekk tamit li nga xam te mooy sa fort ci ci combat saa ci rek ak li sa faiblesse ci diggante tamit Modou Lo ak ki nga xam te bi mooy euh, Boy Niang en tout cas ñi ngi am mbégte kontaan tey kontaan ci moom bu baax a baax a baax di ndax jël nañ taam waxtaan bi yàgg na maataam macha allah tamit yaatu na lépp rek di ko jox ñi nga xam te ñu ngi ñuy topp dañuy suivre dañuy bàyyi xel ci li Sénégal di leen wax seen mbégte mooy suñu yitte lépp loolu mënti bëgg rek fépp fu mënti nekk dañ koy jëli jox ko ñi ñuy suivre dañuy bàyyi xel di wax jàmm ak xéwal yàlla na ko yàlla tuur ci askan sunu gaal jërë ngeen jëf. Jomana